salaamaaleykum waa Kayar 24 salaamaaleykum mbokki commune bu Kayar man la Papa Diop euh, di opérateur économique euh, ñëpp xam nañu ma fii ne waaw loolu day gis naa ne situation bu catastrophique la euh, parce que importance blance ci dëkk donte dëkk bu ndaw la sax importance en ambulance moom kenn mënu ko naatable parce que saa bu urgence amee d'autant plus que niveau niveau niveau bi ñu nekk côté santé Euh, niveau bu baax la c'est-à-dire que fii poste de santé moo fi am am na problème i bëri su amee dañuy obligé ñu évacuer ko donc kooku à tout le temps man mi guddi ku nangoo guddee tëdd laa damay liggéey guddi mais gis naa ba taay toute forme évacuation ak n'importe quelle heure léegi nag suñ demee ba fii amul ambulance day nekk problème bu mag euh, boo xam ne day nekk ci commune bi te gis naa ni loolu maire yi waru woon seetaan te loolu euh, nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla jàpp naa ne képp koo xam ne doomu Kayaar la ci boppam euh, mbir mi soo ko yëgee wala nga xam ko euh, du neex ci sa xol xëy na nag bi loolu amee nekk loo xam ni ñun ñëpp war nañ ci mën yaakaar naa ne biñ koy wax rek bërki démb parce que Abdoulaye wax na ko dafa am kenn nit koo xam ni dafa accidenté woon moom mu fekkee ko yaakaar naa kooku ci bi mu mujjee dégg ci information yi mu tuddee mooy dafa ñàkk bakkanam ci jour bi ñu koy waxaat ci lañ amal benn accident boo xam ne waa ji presque def na foofu lu mat une heure quelque amul dara loo xam ne mun mun na ko sauver kon jàpp naa ne loolu nekk na loo xamante ni rafetul. saa que moom bañ ko informé ni ambulance yi taxaw na rek waroon na mën a fexe ba am lu leen remplace en plus que gisoon naa fi au moins ñaari ambulance yu fi nekkoon yàggul loolu loolu yàggul dara loolu yàggul dara gisoon naa fi ñaari ambulance yoo xam ne ñu foon donc maire moo na fexe ba au moins benn nekk en permanence di dox voilà li tax mu taxaw nag ci xaw na ma jaaxal mais Kayar war ñu seetaan ba ñu eh, toog ñu ni dëkk bi amul ambulance ak Kayar fi nga xam ni ñun dañ ko fay dégg yëpp foo na ñu ne la Kayar Kayar Kayar boo laaj waa mu fier ci Kayar mais le minimum <laughs> pour pour eh, pour benn village sax defe naa waroon naa ma ambulance. dégg nag loolu bu amee yaakaar naa kenn ku nekk nekk doomu Kayar nga dégg ko gëm naa ne am na ci ay nit yoo xam ne kenn ku nekk ca ñoom fañ nekk bu doon yor nañ njëgu ambulance ñoom ñooy dem jënd ko mais nag loolu bu ko ñëpp déggee ñu xam ne lépp Kayar la mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla du neex kenn ci koo xam ni dëkk ci ci dëkk bi nga. di eh, nuyu eh, Abdou Ndoye moom mi nga xam ne moom moo njëkk a posé débat yaakaar naa di ko gërëm bu baax ba pare tamit njëkk yëkkati alalam def kon yaakaar naa ni su loolu amee ñu taxaw ni dañuy def benn kañu boo xamante ni dañuy def lu tout pour mën a am ambulance dëkk bi am ambulance. waaw solution bi mooy maire ci boppam dañ koy jox budget muy muy muy muy liggéey donc normalement ambulance bi bi tax taxawee léegi war na at donc normalement ci budget 2024 bi waroon na prévoir xaalis bu mën a tax ñu jëndaat ambulance. beneen bi ci des mooy bu fekkee maire dafa télé euh, population yi war nañ mën a jóg euh, def élan de def ay cagnotte euh, ay coopar exprès yooyu defe naa bu ñëpp yëngatoo rek dina am yenn bu amee aussi ay bonne volonté yoo xam ne am nañ moyen suffisamment pour mën ko def aussi mën nañ ko def. yaakaar naa amoon na fi ci ci échographie bi ni amoon na te mu manqué te tamit ñu waxtaanee woon ko ba tax yàlla dogal loolu am kon buñ gisaatee ci ambulance amu fi. ñu war a taxawee loolu yaakaar naa loolu lu ñuy saluer kon jàpp naa ni Kayar ni mu ci dayoo ni mu ci tur ak foo génn bi Kayar laa dëkk ñu koy ndamoo jàpp naa bu ñu demee ba hôpital bi moom euh, lu doy waar. waaw kon moom maa rek euh, comme quoi ambulance moom dafa nekk loo xam ni dafa important da nga xam ni ñëpp ñëpp war nañ ci dugal seen loxo bu kenn xeeb rek li ngay dugal. képp ku fi nekk rek di yëngatu na ku ci nekk fexe dugal ci sa loxo ku am dërëm na dugal ko am cent franc dugal ku am mille franc ku am cent mille mu dugal defe naa loolu suñ ko defee léegi léegi nii rek nañ ci dajale loo xam ni bu matulit dina am yenn bonne volonté wala maire bu ci dajale loo xam la ci des dina dina mën a dina mën a dina mën a sotti daal. moo tax nag ñu ngi ciy invité ñëpp ku nekk euh, dugal ci ñaxam ngir ñu mën a am li xam ne moom moo nekk ambulance te loolu yaakaar naa bu ko amee ñëpp euh, seen njëriñ lay tey bu ñu nee Kayar nga xam ne bu ñu soxlaa engrais dañuy génn ci biti dem di ko àbbi wala ñuy jël ay nit di teg ci ay dacia wala ñuy luy ay kalandoo di leen teg loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni lu doy waar kon jàpp naa ne ñëpp war nañ cee mën a teg seen loxo pour loolu mën a jëm ci kaw.